dañu àndoon depuis le 3 ba nëgëni di liggéey ba tey di le 22 ñu war a def collective de campagne yaakaar naa suñu ko waxee xel yëpp day dem ci ne ñun am na loo xamante ni moom la ñu doon wut ci askan wi nga xamante ni moom la ñu nekkaloon. muy lan dañoo amoon suñu mbër mu nekk fi yàlla dogal tey jii ñu toll ci mandat mu war a jeex mu war a yóotu ñaareel bi mandat ñu dem doon dagaan baatu askan wi. yaakaar naa li ñu ci waroon lépp def nañu ko bu dee wax wax nañ ak ñoom bu dee jëflante ak ñoom ay teraanga def nañ ko ak ñoom bu deente ni itam amlante amlante nañ ak ñoom kon mu mel ni dañoo dem ba egsi ci cëppaandaw gi cëppaandaw gi nag ku nekk xam na ne tey campagne bi tey lay yem tey ci minuit ñu bëgg nag mbooleem ñi nga xamante ni ñun ànd nañoo ñoom doon liggéey ba egsi fii ñu egsi ñu leen di ñaan metti na waaye nañu muñ te xam ne ñaari fan rek moom moo des ci élection yi loolu nag suñu ko waxee xel day dem ci ñi nga xamante ni dañoo am seen ay militants yoo xamante ni ba nëgë ni seen carte électorale seen carte d'électeurs yi dafa des ci centre ci commission carte d'identité yi ñu war leen a sensibiliser bu suba ak jàmm di samedi ñu war a dem jëli ji seeni carte su ko defee bu dimanche ak jàmm ñu mën a fal président Macky Sall premier tour avant 18 heures beneen beneen bi ci topp mu mel ne ñi fi jaar dañ ko wax ren dañuy sant yàlla bu baax dolli ci li ñu ko santoon di gërëm bu baax a baax it Cheikh ba siiru Mbacké mi nga xamante ni moom moo fi Serigne Touba ci kaw suuf di ñaanal xalifa xayra di Serigne Abdou Khadir Jili yàlla may ko ak wér guddalal fenam ak mboolem mi rakkam ak njaboot gi fi ne ñëw di leen wan lii bi ñu jógee di dem am nañ ñaanu kilifa yi nga xamante ni ñoom la ñu séqal diiwaan bi yëpp ànd ci ak ñun rafetlu ko ñaanal ñu gunge ñu kon ñun rafet nañ jortu fi ñu jëm dimanche ak jàmm ne li ñu bëgg dañu koy am li nga xamante ni nag moom moo ci ëpp solo ku nekk xam na ne élection jeune moo ko yor ak les femmes kon yéen suñ mbokki jigéen ñi na ngeen bàyyi xel bu baax a baax dimanche na ngeen teel a yeewu ñëw avant midi ngeen voté jeunes yi tamit mobilisé wu avant midi ñu voté te suñu voté ba pare nag ñu taxaw sécuriser suñuy vote bañ def dépouillement yi ba pare ñu gagné suñu centre de vote yàlla dogal monsieur le président de la république am deuxième mandat mën a delluwaat pale ñu feetewaat ko fii nga xamante ni fi la ñuy taxaw tey jii di ko wax muy diwaanu xayra kon maa ngi gërëm ñëpp allahuma salli wa sallim wa barik sant nañ leen gërëm leen jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba sëriñ Mountakha Khadim Rasoul yàlla na fi yàgg lool ci wér. asalaamualeykum yéen mbokki xaayra ñu ngi jël nuyoo bu tedd nuyoo bu màgg di ko Serigne Abdou Khadir moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fallilou ak Serigne Mourtala ak sëñ Basirou ak mboolem njabootu Serigne Modou Bousso Dieng yi nga xam ne moom sunu turandoo Cheikh Mouhamadou Moustapha Fallilou di borom xaayira kon foofu laay njëkk a tàmbalee nuyoo bi nuyu yéen waa xaayira gi yëpp di sant bu baax. ci fan yi nga xam ne ñi ngi dugg mbedd yi par koñ di leen jéggula na ci bruit bi tuuti waaye it lépp ñu def ko lu dul pour njëriñu xaayara ñu xam ne fii ci xaayara ñun amuñu lu dul lépp luñ am guddi ak bëccëg xaayara moo ko moom ba tax na maa ngi sant bu baax comité électoral bi nga xam ne moom lan jiite woon fii ci xaayara ñoom ñëpp muy président maam góor ak soxla soxna ñoo bëgg coordinatrice bi ak les responsables des jeunes ak famille ak mboolem ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon ca yaatal na ma bu baax jàppale na ma bu baax ca liggéey dañ ko ci amul benn bruit ñun ñëpp suñu xel ànd nekk benn xam ne ñoo bokk xaayara ca njariñ li ak lépp mënuñoo mënut a génn biir xaayara ba tax na yéen ñi dox di dem ak yéen ñu ñuy dégg ñi ngi lancé benn appel le 24 février muy garaawaat suba garaawi suba ñi ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne def nan ko def nan ko sun borom dogal ñu def ko ci jàmm muy paix ndax réew mi réewu jàmm la ay élection jàll na fi bis bu ca teewut réew mi des di Sénégal kon réew moomu di réewum jàmm ñu def ko ci jàmm sun borom jox ndam ki nga xam ne moom la ko war a jox ndax nguur yàllaa ko jox ku ko neex waaye yàlla nañu ko yàlla jox jox ko président Macky Sall mi nga xam ne mooy suñu candidat ci biir loolu kon comité bi maa ngi leen di sant bu baax maa ngi leen di gërëm ci jàppale gi ngeen ñu jàppale ak liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko mu leer man naa ñi den doomi xaayare yi xam ne ñun doomi xaayare yi ñoo ànd ak ñoom di liggéey gëm naa ne bureau yi di xaayara kenn ku ci nekk bu ñu eggee ci 24 février bi ñoom ñëpp danañ jël seen carte wateel ko président Macky Sall ndax danañ xam ne ay doomi xaayar ñoo lëkkatuloo ànd ak ñoom fa seen i liggéey xaayara loolu nag ndaw ñi ñu ngi ci biir ca ndaw ñi man ñooy samay xarit ndaw ñi ñooy samay xarit ndax lii yor lii yor. ëllëg yéen la ni ubbil xàll yoon wi ëllëg yéen ci seen jëmmi boppam yéen ñuy remplacer ci terrain bi kon xam leen ne lu mu ni xàll lu ne yéen lañ koy xàllal ndax ëllëg yeneen awaniiru dëkk bi waaye duma fàtte jigéen ñi jigéen ñi lépp yéen la ma ne jigéen ñi lépp yéen la yéenay mobilisé yéenay sonn yéenay jëkk daw guddi ak bëccëg ngir njaboot gi yéenay jëg di mobiliser it yéenay dem wote ji kon yéen jigéen ñi kenn mënu leen a ñàkk bañ a delloo jukkal xam ne li ni wut suñ ko jotee yéen jigéen ñi ñun dana nekk seen avocat fas yéene projet yi dugg ci réew mi du dugg ci dëkk bi bu ngeen man jot ci seen wàll loolu moom lu ma leen di engagement yu ma jël la kon ba ci gàttal ma am benn lancement bu ma benn euh, dikk euh, wax bu may leeral ñun danoo amul ku dul Serigne Touba gamuñu ku dul Serigne Touba ca dëkk bii di Touba dañ koo war a wormaal dëkk bii di Touba danoo am fu amuñu dul moom ndax bu ñu dee fi kon gamuñu ku dul Serigne Touba kon ñi ngi dénoncé wax ne li fi am démb ñaaw la nañ ko ñun ca kenn duñu ci dégg kenn duñu ci seen ndax lu mel ni jiitum réew premier ministre ñaw fi am ñu jëg di am nu ñu doxalee waaye defuñu ko premier ministre Serigne Mountakha lañ ko def ca Serigne Mountakha Xaadimu Rasuul jàpp naa ne ku gëm Serigne Touba boo duggee ci biir kër Serigne Touba da nga am leneen looy xalaat lu dul di yooxoo wala ngay wax lu dul noonu ci àdduna rek tax dama jàpp ne bàyyi ñu xel li seen maam yi ba gàddaayoon Bayi seen dëkk yi fekk si Serigne Touba dafa mel ni dëkk bi am na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi koy bëgg a réeree ca nan bàyyiwaat xel ne Serigne Touba bi mi sañ ci dëkkam bii di Touba lépp lu mu ci jubloon pour nit ñi ànd nekk benn pour nit ñi ànd ci biar ak i teggin ak i teggin warmaal mag ñi ba pare warmaal ñàngalum seexul xadim mhm. waaye mbir maa ngi bëgg a ci ndaw yi ni ni doxalee lenn ci ndaw yi rawatina ndaw yi ku jëy politique bi ndax violence mayu dara mayu dara biir kër sëñ Touba ku fa ne ndax bu doon loolu la bu ne premier ministre mi ngi fi ñëw di taalibi duñ Touba gëmut lu du sëriñ Touba yaakaar waa daaru minam ñëw di siyaare si ab sëriñam ca dëgg dëgg dëgg dëgg bu duggee ci biir kër mu Mountakha nit ñi war noo mën a xalaat leneen mhm. lu dul dem fa di def yëfi violence ak yëfi réwéne waaye loola ñun bu fekkoon ne dëppoo wut ak ndégalu sëriñ bi xamuñu li sëñ bi jàngale ci dëkk bi bu boobaa loola du am mukk ci kaw suuf parce que nag ay nit lan te xam nañ lu bari ci dëkk bi yàgg nañ fi ca lenn lu ci nekk rek ci question politique war na noo mën a am réponse politique am waaye ñun sëñ Tuubaa ñoo ñoo gënal lépp kon loolu maa ngi lancé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 géew ba ci wetam mu nuyu ko jege ci dem ba ci ñi ca mu tok ca nan ana safatu min iman asbuna fofu kep foofu doy na fi la ci yam kon ku jàkkaarloog cheikh saliou mbake jeriñu wo ca ku jàkkaarloog cheikh saliou mbàkke wilaayam nga tibboo ca koku tay bo del waté di wax say wax jëtt deglu sax ndax japp naa doomi seigne tuwaa ku ko tassé mom ci aduna ci jeriñu ci say wax mom nopi ka jeriñ ci kaw suuf benen bi ci tege muy candidat bi nga liko ñor moy bis bu jontoon réew mi tey mën wax ne kon candidat bobu mbirum diine mom du tabati kenn du dem di siyaare ci ay barap kenn du magal ci kenn magal ci Tuubaa gi mom lay jëk dindi koko moy Sonko ko bàyyi leen ko xel bàyyi ko xel bu baax benen candidat bi ci des mom moom ah, nit mom bu demee bay soppi ab deram ab deram wax na leer bu demee bay soppi ab deram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 nan ko woteel au premier tour à propos bala may terminer am na ñaar ñoo xam ne nii tey danoo ñëw ngir dugg ci parti bi di parti APR fa seene soutenir président Macky Sall ma bëgg ngeen may ba benn minute kenn ku ci nit ci ñoom donte trente secondes la nga jël kàddu wax ko présenté wu loolu laa ne woon yéen waa Xaayara seen doom yéen waa Xaayara seen baay yéen waa xaayara seen nijaay yéen waa xaayara seen sëriñ sëñ Modou Bara Dolly Mbacké tàllal na leen loxo yéen ñëpp ngeen fas yéene watal président Macky Sall au premier tour wasalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum mbooloo yu ci daje maa ngi nuyu ñëpp ñu ci toog tey teew muy sëñ Modou Bara Mbacké Dolly maa ngi nuyu nag jeunes fi teew yëpp yëpp yëpp di wax ni maa ngi tudd Dag Diop nekkoon Karimix euh, maa ngi géré woon maa ngi jégalu maa ngi nekkoon coordinatrice Karim tànneef askan bi Ndamatou.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 waaw ñëpp ñi ma àndal ñu ngi may dégg ñu ngi foofu si ginnaaw di ma dégg jërë ngeen jëf kontaan naa bu baax a baax jërë ngeen jëf waaw ah, benn PDS ñu indi PDS waaw ñëw ñëw waaw gannaaw bi ñu sant yàlla sant naa jiwu si yëngu sëñ bi loolu laa war a di sant Serigne Moustapha Mbacké di ko ñaan yàlla man la Modou Boussa Seck di chef de quartier ci Khayra Diop nekkoon ak soxna Assa Mbacke si Abdoulaye bi mu nekkoon PDS di jàppale Abdoulaye Wade ak jigéen ñi ak liggéey Serigne Touba bu bari nag ñu ànd ko muy wàllu social ak lépp ak développement waaye nag bi ma demee ba xam ne yàlla dem na Abdoulaye amuñu candidat bi ma ne soxna Assa nag comme que sëñ Modou Mbacke nii ma bokkal turandoo bokkal moom Khayra tey dugg xayra ba ñu nekk ba léegi ma dugg xayra moom laay àndal ñu liggéey xayra ci liggéey bu rafet moom it bu defee ko mu rafet ndax bi muy dikkee ren bi li mu def ci campagne ci xayra ñëpp gis nañ seen bopp ndax liggéey def liggéey bu sell boo xamante ni mbooleem ñi ñu bokkal bureau bi rek gis nañ ko mu leer nañ ndax lépp da ko teg table bi mu leer nañ ñun nag ñoo ngi sant sëriñ bi borom xayra ak sëriñ Mourtala ak Serigne Bass dem na ci sëriñ daara yi dem na ci fépp tey jii maa ngi jóge fi ñoom boo xamante ni la Macky nee na incha allahu rabbi dina yokk tuuti li ma gën a marqué ci discours am nag mooy Tony Samuel bi nga ni moom lañ yaakaar amul ñun moom ak Ndoye Bargade Touba Mérina nee na incha allahu rabbi dina yokk tey kon bu ñu ay taalube te gëm Serigne Touba bëgg xaayira rek war ko mën a jàpp ma di ko xam naa dëgg laa maa ngi leen sant leen gërëm bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon loolu laa doon teg témoin rek di terminer ci encore santaat waa Xaayara di leen jox rendez-vous gannaaw suba yéen ñëpp ngeen wateel président Macky Sall ñu dellu di sant groupe bi ma àndaloon maam Góor Diop le président ak Soxna Ndiobo Mbacke la coordonnatrice ak Serigne Cheikhouna Mbacke mi ñëw ci jotaay bi waaye du ma fàtte soxna maam Assa mu Serigne Sidi Abdoulaye nga xam ne guddi ak bëccëg mi ngi ànd ak ñun. depuis que ñu tàmbalee campagne bi di sant docteur mau bu ale di sant ah soxna May di sama soxna guddi ak bëccëg mi ngi ànd di fàtte di fàtte di bañ a fàtte ñi nga xam ne seen di soxna Assu Mbacke guddi ak bëccëg mi ngi ànd it ci jàppale ñu ak soxna Mati Diané maa ngi nuyu ñëpp ak euh, la trésorier euh, Malick Thiaw bi nga xam ne au parti oppose euh, allié ci la bokk kon maa ngi sant di gërëm it Ousmane sun moo leen journaliste yi nga xam ne moom samay xarit ngeen boo leen limee yéen ñëpp rek bàyyi bàyyi ma kenn